Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa di ñaan réew mi di gi ñu dugg yàlla nañ ci dugg ci jàmm génn ci alhamdulilah waaye di ndokkeel sunu mbokk catholique yi euh, di leen ñaanal yàlla defal leen kooru jàmm ni leen ko waxee rek à chaque fois people 221 di xew euh, moo amoon semaine boos de néegri ma koy nuyu baax baax di ko ñaanal sëyam bi yàlla sunu borom defal ko ci jàmm may ko ci njaboot gu barke ci kaw loolu ñu déggaat ci yeneen coow ah, waali demul waali ñëwul aadama waali faalewu ko ci loolu nag à chaque fois dañuy def rek lépp loo xam ne actualité la ci semaine bi ku ne gis na tamit coow la Aïssatou Diop Fall noonu laay daralee sama chroniqueur mag bi Djimbory yi mhm. maa ngi lay nuyu mon frère waaw waaw guy gi maa ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu fi nga fekk nii wan sob mais tey da nga nekk booy wan sob moo ma delloo ma wan wax dëgg yàlla amet xam nga booleeg boo loo soxla dañ fi toog ñun man fii laay gérer ko mm-hmm. xam nga booleeg boo soxlaa appartement kër yëpp boo ñëwee fii ñu gérer ko. wax dëgg ah, nga may marketing. ngay wax ak sa xaaj yow it maa ngi lay fay ko di nuyu sama grand Abdou Aziz Silla di nuyu bu baax aw mbuub sama magi bopp Camara Mbay yaa fa taal xam nga Xadim Mandiang jimóori bàyyiwuma kenn waaw buñ paree foofu dëgg yàlla di nga sant comme léegi nga ah. taxaw taxawaayu que parce que xam nga gars moom ni ngeen ni ñuy ñëwee noonu la ñuy demee am na ñu fiy toog d'accord waxal rek ah, d'accord ayca jimboor yi am na solo ñu gis fan yee benn mariage bi amoon mu di mariage yu Adamo hmm. Boss de Negri après mariage bi Adamo génn ay ay yoo xam ne da ko doon yëkkati naxarlu li nga xamante ni Wally Seck def na ko nee na ñëwul hmm. woowu ko et tout ça hmm. en tant que chroniqueur naka nga jàngate mbir moomu waa xam nga euh, guy gi ma wax la dara est xam nga waaraam daan dañoo dëgër boobu xam nga loolu. Hmm. ñaata at laa ne leen kii dina mus a kaacoon fekk ñaata yoon nga jël fii rek nga gis ma dugalaale ko ci. Hmm. kon suñu xoola kon bu kaawee kaawaali sekk waxuma ko xam nga man mi bañoon ba ne leen kii ngeen ni àndal ñu ne waaw ma ne leen dina mas a kaacoon sekk kon ñoom waxaalewu ma leen. du dégg ba pare dafa am ñu nekk ci biir daan ñoo xam ni dañuy euh, dañuy dem jëli seeni nit indi te doo bàyyi boroom yëfi yi jëli nitam indi hmm. daf si am. d'accord xoola mbalit mu fa am rek gaayee ko indil waali seeg mais waali yanuwul du yanu mbalit di ko indi. Hmm. du dégg parce que yow benn benn affaire na ko xam souvent léeg-léeg waali si yërmandeem laa la wax de si yërmandeem ak mbaaxam day indi nit ko xam ne du du ko jëriñ dara pour moom mu jëriñ la dara yow nga dem indil ko ku ko lëjal ba pare wëlbatikuwaat yor wax ji booy dafa am ñoo xam ne dañoo nekk si biir Ramadaan léeg-léeg est-ce que balaa ngaa indil Wally sekk nit yow war bu bu dee sa nit la. est-ce laajul yow nga jeex nit ki ngay indi xool ba xam nit ku baax la wala nit ku jub la wala ànd ak moom dina am continuité wala amu ko nga doog a yann kooku indil ko du noon mm-hmm. mais ñoom léeg-léeg dañuy yann ko xam ne ñoom boo leen joxoon pour ñu xaritoog moom du ñu xaritoog moom ñu indil ko xëpp ko waali defal ko ko mbalit. Mm-hmm. Adama mbalit la. waaw. pourquoi muy parce que. billaahi xoola Adama nit ku bon la. non non ñun ci li ñu gis. waaw day sonal waali day sonn ci waal yi saaga na fi ku nekk ngir waal yi. waaw xas na fi ku nekk ngir waal yi. waaw donc tey moom muy mariage. waaw déggul waal gisul waal yi est que du looloo ko métti aussi. waaw léegi xam nga benn jàngat laa lay wax léegi Wally Seck bi mu amee dëj ndax Adama jaale si na ko. mais demoon na fële nga xamante ni moo ci hôtel ba. déggoo ma hôtel ba ba mu fa demee dafa dem filmer Wally sekk mhm. Wally kii Adama ci image Wally lay doxalee ay mbiram. guy gi Adama du théâtre kat guy gi Adama du woykat guy gi aadama du guitariste guy gi aadama du sabarkat guy gi aadama lan la laa lay laaj. mais la ko bëgg waali rek. bëggul waali musu ko bëgg barki seexu naa Ahmadal Tijaani yàgg naa leen wax ne leen aadama bëggul waali xoola man waali ñu ko bëgg boo ko bëggee rek ma xam ko xam nga lu tax. xam tey li mu def nii confirmé na ko guy gi ndax soo bëggee nit ki. magam dina génn àdduna nga jàpp ko di ko daggate mel ni téyeer di saaga jëkkëru mag ji bi mu génnee lu mu wax moomi bu ko defoon sa mag yow di nga ko nangu guy gi sa aqulaay taal di nga nangu loolu doo ko nangu de. ñu jóge foofu mu fekk Amady bajaan mi nga xam ne mooy reen bi Amady ko xoola man mii muy man muy yow guy gi muy amet wan sop ak sa waa ji nga àndal kenn ku si nekk am nga koy sékkéréel li Amady Badiane doon wax ak moom secret Amady Badiane la nu mu def amadi weer ko tourné ci Baye Sall mais bu leen benn benne baraam daan jeex mais kii lan la nar waxal. ba pare xoola laajal a kii naka Adama Adama si boppam ma wax la benn affaire bi jaaga génnee àdduna dafa fekk waali tallu ko mu ñëw dafa filmer waali naan gis ngeen maag waalee ngi nii bu doon yow di ko def. guy gi aadama yuur yuur xam nga yuur yuur bi nekk si yow yow guy gi nekk ci man nekk ci wan sob barke rasulullahi yuur googu nekkul ci aadama yéen da ngeen a fekk ku yor yuuru xaj te nekk yuuru xaj lañ jël sol ko ci jëmmi nit. d'accord mais xam nga loolu. ba pare dama lay wax benn affaire tey jii xool bu doon nit la yow nit di nga fekk ko xam ni yaayam gaañu lu mu xat-xat nga filmer ko fa ñëw di wane. Adama image lay defar ci Waly sek mar waa xoola marché la def Wally Seck te xam nga est ce que xam benn affaire ñi mu daan saaga naa leen live live bi ngoon na ngeen ci dugg loolu lay def Wally nii ne ko da ngay def vidéo par force lan la ko def nii guy ma wax la benn affaire Adama Wally léegi euh, euh, marché am bu bu bu xoola bu continuer comme ni mu doon defal Wally dootul am xaalis xaalis fi mu koy yaakaaree ci ci ci opposition yi opposé Wally foofu lay amee xaalis léegi. d'accord mais moo tax waali du doy. ba pare waxu aadama ni ñun ñoo ciy wax nii rek xam nga man lan moo tax ma ciy wax pour wan sénégalais yi nit ko xam ne nii dafa bon nan lay mel moo tax ma ciy wax mais aadama kese ay waxam jaru sax wax. ba pare na ki mu takk naar bi mu takk bi mu koy takk itali na ngir yàlla ak yonent bi moodu moodu yu nekk ci commentaire people 221 nañ ma wax kull ku ñu mës a takk Italie te ay mbokkam teewuñu. non ah côté boobu moom dinaa si ñëw parce que gis naa tamit ay mbokkam teew nañ baara noyes baara baara noyes gis naa mu taf ay famem mais côté boobu yëpp tey waaw baara naa feq la ah, ngi dégg bu ma wax waxu baara tey même bu dul ngi dégg xaaral même tey ah. te même tey bu ay mbokkam ñëwul tamit takk na ko en tant que jullit dañ koy ñaanal séem bi barke du dëgg ban jàkka nga gis ñu takk ko non mais ci li ma gis ana jàkka ji waaw mais gisuma jàkka mee ci li ma wax non mais gis nga jàkka wala gisoo ah, jàkka gisuma jàkka mais ci li ma waaw boo gisul jàkka bul ko ne julit nag wax dëgg yàlla waaw d'accord waxal rek te moom am na këyit yu mu yor dinaa si ñëw de d'accord am na këyit yu aadama yor këyit yooyu dinaa ci ñëw de te ba pare xoola ma wax la benn affaire dinaa ñëw ci ay audio yoo xam ne mosoo leen ko dégg yéen nag dinaa la wax loolu de d'accord naa la wax loolu de. mais léegi. waaw est que moom tamit euh, euh, ni wax li fi muy waxee mooy li ma naqari mooy man xeex naa fu ne sonn naa saaga nañ ma menacé nañ ma ndax waale te nit ku ne bësam nga am léegi te nee nit ku koy xeebal bësam rek xeebal ko léppam est nekkul moom foofu noonu lay waxee moo tax mu génn di wax. léegi dama lay laaj. ban contrat moo ko lié ak Waly Seck. Ah? bëggul Waly déggoo ma. guy gi ma wax la dara. ñaata plainte laa jot ci Wally sekk man te ci dëkk bi laa toog ma wax léegi ma wax la ko te yow kenn mësu ko yëg ñaata plainte laa jot pour Wally Seck ñaata. Mhm. ba léegi am na bu dugg pour waali Seck laa la wax nii de te bu dee wax la xoola ñooñu dàq ñu ma wax maa leen dàq wax wax ju yiw ci laa siiwee ñoom ñu siiw ci wax ju ñaaw. comprendre nga li mu la Adama balaa muy dem ci Waly sekk di jàppale Waly sekk dafa saaga daam seen dugal ko saaga ma man mii dugal ko saaga saaga ku mu jot saaga la di dox ci bësu nit ñi mu wiiru ci Waly Seck xoola ah public Waly sekk boo ko génnee ci public Adama lan moo ciy des. dem na ba xam ne Ramadan amatu fa dara day créer beneen public pour bàyyi ñun bàyyi ñun suñu public loolu lay def nii gënuñoo muus. du dëgg. d'accord mais gënuñoo muus ba pare dama lay wax benn affaire. est-ce que yow di nga forcer nit ne ko moom ni mu daan def di gis Wally Seck est-ce que bu ko defaatee du gis Wally xam nga lan moo tax muy def nii soirée ñi meetu la am Europe moom mu doxantu fa na dem. nii nii nii na soirée dem mu dem dama lay wax li aada lu ñëwagul lu ñëwagul laa lay wax soirée dootul am nga gis aadama doxantu fa xam na ni mënatu faa doxantu léegi day dox si maay nu nit ñi nii pour defar ba nga xam ne Wally sekk bu ñëwee Europe moom mu ñëwaat defar image am aadama boo ci roccee Wally sekk aadama du dara xoola xam nga mu daan def day toog ba Wally ñëw mu ñëw ànd ak moom ne mi ngi nii sama xarit la nangam nang dem ak image boobu xoola ma wax la lu kenn musta wax benn bis bi ma ànd ak seek euh, ak jaaga mooy bi jaaga doon def seedeem yooyu dama toog benn waay woo ma mu ne ma image bi nga def nii yow ak Waly ak jaaga euh, mun nga ci am xaalis bu bari ma ne ko ban xaalis laa ciy am mu ne ma non boo ñëwoon ñu kii ma ne ko sa waay xam nga lu ma bëgg mu ne mu ne ma comme ñoom aadama niñ koy defee dañuy dem si Waly seek filmer ko wane bu ñu demee am na leneen lu ñu siy gagné ma ne ko ñoom aadama la du man yooyu bu ma ko waxati. kon wax naa la wax du. d'accord waxal am na foo xam ne bëgguma fa yegg de. d'accord barke rasulullahi soo gisee mu koy filmer nii xoola da koy dundee xanaa am la ñoom Sidi Diom ñoom euh, Waly Seck ñi bëri na ñuy lekk si ñoom lu bari si seen jëmm te ñoom yëguñu ko sax nit di la utiliser xoola loolu xoola pour mu gën a leer si yow mbay Dose bi mu joué mm, Mbaye Bercy ni ñu defoon Youssou nduur noonu la Adama def waali Seck. d'accord mais mbay mbay bërsi da koo gën a setle parce que mbay bërsi ba mu demee am ci xaalis continué wul di yàq deru Youssou nduur kii dafa dem ba am ci nit ñi xam ci mu mën cee takk jabar génn di ŋàññ Waly Seck. Waly Seck ma wax la benn affaire mu may dégg du dégg Waly ñoom dañ ko gis nii muy dox pour ñoom Waly Seck lu mun na ma defal boppam da koy def. waal dafa am estaf am ñu ko wër am ñu muy déglu lu dëgg lu muy def ay nit ñoo ko koy defloo mais du Wally sekk mooy jóg di defal boppam yooyu yëpp kon kon am na ñu xam ne ñu am na ñu fa nekk ñu xam ne dañuy dem ba ko. d'accord ñi muy woo nag di leen enregistré. waaw foofu laay ñëw mais parce que parce que dañu dégg ay audio ay tamit yoo xam ne jaaxal ñu ndax jaaxal nañu bari aussi tamit. waa xam nga dama lay wax benn affaire gis nga ñi ñuy audio noonu tey ñoo raamdaan aadama da leen a simmi ba mu set xam nga lu des mu simmi seen silib bi silib yi la bëgg simmi nii silib yi nag moom dina am ñu mu simmi mais am na ñu xam ne seen silib mooy dëgg xoola mooy raw kii euh, silibu weñ du ko dindi xoola ñi muy enregistré di di di leen dugal moom ñoo ma yem rek moom ñoom ñoo moom ñooñu ñoo yem rek. parce que tey ma wax la benn affaire ngay wax nit ki loo xam ne bu waali taxawee doo ko wax naa feex nga. sa waay naa peq nga bu rëy parce que yaa ngi wax lu xam ne bu waali taxawee doo ko ko wax yow léegi dama lay wax nga ni di nga wax waali mu defar vidéo yow sa vidéo doyut yow yow munoo defar sa vidéo rek yow yamti waxal gis nga guy gi sama xarit nga mais ñun ñaar ñëpp xarit lañ mais bu guddi jotee ku nekk tëdd sa néeg guy am na sa géej goo xam ne bu ma ko naree xuus est-ce war naa ko xuus waxal géej sax am na foo xam ne boo yamee ci moom mu lekk la ñoom nag dañoo tefesu Wally Seck moo moo moo moo moo moo moo moo yomb léegi nag comme tefes géej bu tefes gi yombee da ngay defa ni xuus ko yomb na da nga koy jéggi rek yow te boo ko bëggee jéggi laajal fir xaw na keroog ba mu bëggee jéggi kii ba mu bëggee jéggi géej nit ki am na foo xam ne saa boo ko fa yemee boo fa boo ko fa àggee mu ne la yemal fii ba pare nit ki dama daan gis ni li tax sànq ma ne la aadama yuur gi nekk ci ñun nekkul ci moom xam nga ban firnde lan moo koy firndeel xam nga ko ah parce que yow guy gi nit ki boo ko defee lu bon da nga koy ragal doo gis nga daan diw dafa ma daf may daw parce que dafa dafa jël sama nangam wala daf ma def lu ñaaw wala nangam nangam hmm. yuur googu bu nekkoon ci aadama aadama dootul xool jëmmi doomu aadama fii parce que yow magam ah, Waly Seck ku ko juróon di nga ko yërëm ku mu nekkoon sa mag di nga ko yërëm ko xam ni magam moo départ yàggul dara dégg nga papaam moo départ yàggul dara magam bi nga xam ni lupp nday lu mu lax-lax si la doom di toog mag bu jigéen mooy nday kooku départ dem ñu ni nii mu teg ci yaayam yow ñëwuloo jaale ko yow yaa ngi takk jabar sa yaaya ngi dund sa baay ni jon nga ne mu bàyyi ko ñëw pekk si la yaay mbaam waxal waxal ñaata nit ñoo jóge Europe ñëw jaale si Waly Seck ci dëju euh, euh, jaaga Adama anamu. mais moom déplacé na dem ci hôtel ba. def mani ba mu demee hôtel ba dafa filmer waali Seck guy gi tey ji yow sama xarit nga maara day taali di nga am sa xarit yaayam dee nga fekk ko fa di ko filmer di ko def mais def ko filmer première heure ba pare Waly Seck tallu ko parce que boobu mi ngi ci euh, mi ngi ci affaire euh, euh, néew bi léegi dama lay wax filmer bi mu filmer Waly est boo xarit dëgg dina la fekk sa yaay génn àdduna nga am double naqar sa papa sa mag bu jigéen sa yaay mu filmer la fa naan mi ngi nii Waly mi ngi nii maa ngi nii fekk ko fii amuñu benn problème di leeral sénégalais yi naan amuñu problème kii nit la ah kii nit la d'accord ah d'accord waaw yow am na solo ah mu nekkoon parti boo xam ne nag mënuñ ci woon ba bañ xam nga man dama bëgg nit ñi ñu way dëtt mbaa ñu way dara naa feq ya nekk kër waali nag naa feq yu yenn naa feq yu bon yooyu mhm. comprendre nga gis nga naa feq yooyu ñuy def nañ ko bàyyi parce que loolu moo wane ne yow li ngay wax si kan xoola man lu ma wax si kanam waali ñeme naa koo wax si biti mais yow nga nekk nit ki mu lay jàppale but ba but lu mu am séddoog yéen xoola bu ñu bu la nit woowee téléphone sax war ngaa wax lu rafet waxal mais naan adi wax yeeg waxi nonsense moo moo yay feeñ nga feeñ nga danga doon nëbbatu feeñ nga feeñ nga. d'accord ah, Adama mii day nit ku baax. d'accord am na solo waxal rek diir bii paase tamit yéen mere naa leen weer bii paase. foo tourné yéen a nga fa taf Adama ak soko no seres te ñooñu duñu nitu daara lislaam ren dina ñooñu. nit ñu bon lañ ba pare aadama mu ëpp problème ñëpp xam nga lu mu waroon wax waali jàppale ma sénégalais yi nga génn jéggalul ma sénégalais ma mën a ñëw gis sama yaay dafa am problème mu gis ndayam ñun ñii ñëpp guy gi dañuy làmbanteeg suñu yaay de mais moom xoola day seen ndayam. d'accord am na solo Jimbori mu ne lijjantil sa waay seen gi ngay seen sa nday nga làmb sa nday comme nit ñi ni ñuy làmbee seen nday aadamu yow lay wax. d'accord fexeel nga làmb sa nday comme nit ñi ni ñuy làmbee seen nday. waaye di seen sa nday yow da ngay seen sa nday rek seen rek waaw. xaj. Hmm. d' accord ah. <laughs> ñoom ñaar ñoom ñaar daal seen combat xam naa ne faaw nit ñu tëgg ko ma ñëwaat ci beneen part non kii du combat dégg ay kàddu yoo xamante ne nii euh, donte mook ba kenn xamul lu ñu séq mais c'est-à-dire sénégalais yi amuñu yenn euh, habitude di dégg yenn paroles yi mm-hmm. euh, rawatina ay mots yoo xam ne nii franchement buñ ko waxee ci jigéen rek seen xel waaw day xaw a mm-hmm. bi nga déggee kàddu yooyu noonu Aïssa Diop Fall ak Farba Mhm. xam nga man boobu ba léegi nanguma nangu si woon wax. Mhm. waxuma ci fenn maa ngi ciy doog a wax comme laaj nañ ma ko laaj yu bëri dinaa si wax si yow comme am nga chance ma wax si. léegi dama lay wax euh, Aïssatou Diop Fall dafa woo dafa woo Farba. Mhm. du dégg ñuy waxante léegi entre Aïssatou Diop Fall ak Farba kan moo dépassé wax ji. fi Aïssatou yam et ce que Farba yam na fa. Hmm? mais est-ce bi mu koy woo Farba xamoon na ni dafa nekk ci télévision. non xam nga tey far Farba xoola xam nga luy njiit kon ñaata yoon laa la wax ni Sénégal dañuy naan diw njiit la diw njiit la mais xamuñu luy njiit guy gi yow mii rek mun nga nekk njiit. Mhm. njiit laa kay. maay xaara xaara ma wax la léegi dama laa bëgg a jàngal jikko njiit. Mhm. ma wax la jikko njiit. xoola njiit tey bu jóge woon Dakar ñëw ci feu rouge bi. feu bi di jàll fekk guddi lañ benn oto nekk fa bu feu bi tàkkee du burle feu bi day taxaw ba feu comme ni mu ko doon defee bu fa nit ñi nekkee loolooy jikko njiit. Mhm. léegi nag ay Aysatu dafa waxtaan ba pare kële dafa wan sénégalais yi ne yorul jikko njiit xoola njiit bu demee fu xam ni xoola olof day wax benn wax naan lu dul yàlla neen la est-ce xam nga neen mooy kan neen mooy yàlla. bis boo desee ba jàpp ni neen xamal ni am na ko jàkkaar lool loolooy jikko njiit njiit du dañ ci di wéttaliku saa su ne loolu mooy njiit mais yéen borom garaam bu bu rëy ngeen xam borom pajoro borom xaalis mais njiit jikko la jikko jikko jikko comme yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam booy ay satu jigéen la lu dëgg fi ay satu yam bu fa bu fa yamoon wax ju du dépassé nii xam nga wax ji enjeu bi mu am Farba si boppam moo to moo nekk ci ñi jiite réew mi bokk ci ñi ko jiite te feeñal loo xam ni loolu di di ko njiit moo ci nekk. Mm-hmm. parce que leneen bu dee ñoom ñaar dafa am lu muy defante leeru la leeru ma lu dëgg mais li ñu leer naññ mooy wane na ne Farba mii yorul jikko njiit lu dëgg. Mm-hmm. Aysatu moom juum na juum bu rëy mm-hmm. juum na. du dégg te juum bi mu juum ay Aysatu su fekkante ne tey dafa nekk journaliste ñu ne nguur gi da kay koromp wala nangam nangam te ñu bëri di wër naan Farba Ngom day koromp waate tey lii lan lay firndeel kon. preuve hmm? preuve si Farba du dégg Aysatu yorum réew yoraanul réew journaliste la journaliste nag am na droit wax opinion du dëgg li muy wax noonu man li muy wax noonu wax dëgg yàlla bokkuñu camp de mais musuma naqari dama koy seetaan rek jàpp ni mu waxee ma dem man tamit fi man fi may ni may waxee ma waxee noonu. am na ci droit mais far ñaar ñooñu Farba moo amul droit waxee noonu mu waxee. kee journaliste la de am na wala amut. bu ko neexee mu wax. mais est-ce que nekkul Farba bi ko Aïssatou woo comme li Aïssatou wax ñoom ñaar dañuy mbalagante yu raw yooyu est-ce ko woo nii rek comme en tant que jàpp ni mu sànq jàngal naa la jikko njiit xanaa déglu woo ma wax bi daa sori dafa xaw a xóot yaa ngi dégg mais dama ni dafa wane waa ji ne yorul jikko njiit xoola guy gi koo mën a waxal ci àddina bul bul dépassé wax nit bul dépassé wax. Farba daal wax dëgg yàlla li mu feeñal foofu man tax na ma gën a defaruwaat ba pare tamit tax na ma xam ni réew mi bu nekkoon ci loxoot loxo yiñ ko teg war nañu ñi ñu ko teg seen loxo war nañu gën a mën a defaruwaat parce que lam fa wax wax dëgg yàlla du loolu mooy defar réew loolu moom wax dëgg yàlla bu dee ñu ngi koy def luy taal réew la. wax dëgg yàlla. d'accord waaw. ba waaw ba pare laay wax. temps yële eh, kii guy gi. Ah. dama gis aw baaba caam ay nit di ko fexeel xam nga di ko fexeel. Mm-hmm. di tëgg ay dil. Mm-hmm. gis nga dil yooyu ñuy tëgg dama la si dama la si bëgg a dolli tuuti wax ci téléspectateurs yi pour ñu bàyyi si xel est-ce xam nga guy gi léeg-léeg da ngay xëy rek ni actualité bi lii la fekk dafa am ko ko créé am na fi. ba pare aw baaba caam kaam dafa am site boo xam ne chaque jour moom moo koy njëkk a wane mooy tulli yeneen site yëpp di mbalax. léeg-léeg chute chute nit day encaissé xaalis yow guy gi de xoola jël yow nga liggéeyal ko fekk xaalis bi am na ku ko encaissé lekk ko am na ñoo xam ne dañuy kompaloo ak ay nit di dal ci kaw ay doomu aadama comme comme comme Awa Baba Thiam comme Cheikh As Barham Cheikh As Barham ma wax la ma jox la benn révélation boo xam ne léegi laa la koy jox dafa am ay sëriñ yoo xam ne dañoo ngemb ay nit sëriñ yooyu di dal ci kawam moom pour euh, yéen jël yi ngeen koy jël ak li muy wax muy am si kanam tuuti di nga yëg lépp ñooñu yëg naa ko ñooñu nañ bàyyi li ñuy dem mais sëriñ soosu bu ñu wóoloo seen bopp est-ce que amuñu droit génn di wax est-ce xam nga a eh, eh, xaw ma ko xamuma. ma nga dëkk Kees maa ngi dëkk Dakar mais dama man maa buggul ñu xam ne coalition ànd xeex xeex xeex guy gi mun na nekk. mais guy gi sit la yor filmeel guy gi filmé sëriñ nga wóolu nga sa bopp mais waxal ci réew mi Cheikh Ass wax ci réew mi dañuy eh, xoola maa ci gis ko xam ne dafa am ko xam ne dafa ñëw si man mu ne ma cheikh bi dafa ma defaroon ay liggéey jotaguma liggéey bi mais ma jaar ci nit kooku ne ma ay nit ñu bëri ñu ngi leen wax ñu ngi dugg sama laay live di wax dugal si sama live nga wax kooku maa ko wax ba seex bi mu mujjee jël ay garabam jox ko ma ne ko jox ma numéro seexaas mu jox ma numéro moom tamit ma jël numéro maa leen arrangé bañ nekk ci jàmm. guy gi sëriñ si nekk fii di ngemb ay nit pour mu dal si seen kaw moroomu sëriñ di créer ay gang nañ ko bàyyi lii rafetut. d'accord te ñi ñuy ruux pour ñu dal ci kaw sëriñ si bu dee nit nit daf laa woo pour nga dal ci kaw sëriñ sëriñ ni moom mooy ruux nit pour nga dal ci kaw diw. nit ñi tamit nañ yeewu ci loolu parce que xam nga nit ki nga jox euh, garab ne ko liggéeyal ma mu ne la xaaral tel date di la dawloo kooku aay na mais am na si ñoom ñu xam ni da nga naan leen garab ñu dem ci saasi jël butéel rek duy ci ndox yëngal jox la. te së gis nga sëriñ sëriñ sii nii dañoo war a arranger lii génnee ñi mën ak ñi mënut. pour lëj-lëj ji yam fi quoi Sonko ngi nii entreprise lañ ko defoon di dund si moom am na ñoo xam ne dañuy wax li ñuy wax du dañuy fen gis naa si sëriñ boo xam ne nii tam xama na lay def day ñëw commencé benn émission denc euh, denc déguisement bi bu dara amee mu ñoom ñu ñëw jekkali ko comme ni da koo waxoon te du dëgg waxu ko nañ bàyyiwaat suñu xel quoi. d'accord waaw am na solo moom laa li maa xasi ndàmbaas moom laa dalaloon fii mu nekk sama nga sama xarit nag waaw nekk koo xam ne ni à chaque fois daf may conseil ci sama liggéey su ma defee dara mu mun ma guy gi lii waroo koo def su ma defee dara lu baax mun ma guy gi li nga def non mais noon la dama du ma la nëbbatu yow ak congaan dama du ma ko nëbbu dama koy wax si internet dama leen di woo congaan laaj ko tanga yële ba ma ko woo ne ko defal nii defal nii fu mu mujj gars yi di ko enregistré du dëgg yéen dama leen a. temps mooy def topp kaa waa xaar yéen ñii dama leen a gis ngeen jàmbaare. ndeysaan léegi nag du ma seetaan ba ngeen yàqu. parce que am na ñu fi ñëwoon mel ni yéen fu mu toll nii am na ñu xam ne ni ngeen di liggéeyee nii dañuy fexe yàq leen parce que guy gi gis naa sa loxo set fu waay jom ne la nañ fa ànd. ay nit sax di la paasal ci avion. Ah loxo bu set moo ko indi. Ah loxo yu set yooyu laay bañ ko ko tilimal te lu mag yor bu gestoo gisul xale la mu yor day naax saay ah moo tax su ma gisee ku lay fexeel ma woole na la guy git attention ki nga jël diw bu ko jëlati. Hmm. bul saltel sa image comme ni may wax congaan hmm. laaj ko du nëbbu ma ko temps yële laa ko woo ne ku la woowati. ne la ñëwal jël kaa xoola dama koy wax fii dama ko wax ne ko congaan mu ne waa mane ko dama la bëgg a dénk dara ku la wooti ne la demal jël kaa ne ko ay yow lii doy na waar di mbaa arrangé nga leen même boo koy jël bu ko wax maa ngi dem jëli ko. waa keroog nit woo na ko gisoo ko taf ñu dugal ko. yakaar ni yéen da ngeen di fayee. waa ya dañoo yaakaar ni yéen. Amadou Fall may ma dañoo yaakaar ni yéen da ngeen di da ngeen di fayeeku pour yàq nit te yéen yàqu leen kenn. Mm. xam nga loolu la daal moo dax yéen yow daal. co Congaan amul problème de Amadou Fall la. Amadou Fall lu congaan dugg rek. Ah, moo koy Amadou Fall Amadou Fall moom moom mooy keneen ki moo xalifa. xalifa ah. moo am sikkim bi. Ah. voilà ah non ñooñ say waay lañ. en tout cas daal lool moo ma neex si yow ma gis ngay def lu set bugguma ko koy yàq daal man daal wax dëgg yàlla ni ngay liggéeyee nii wax dëgg yàlla na yàlla na la yàlla musal ci pexe yi gars yi di pexe mais daal na nga xam ni gars yi ñi ngi fi léeg-léeg bu ñuy fexeel ni dañuy def mbooloo yóbbu sa kaa ñëpp di ko wax doo mën a yóbbu ñëpp police hmm. nga tëdd sa kër jaaxle ak say mbokk am na fi a baax ah. mu ngi moom laa dara doon fii ci people de